jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadim rasul cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la nu jox sunu confiance jaajëfati xaadim rasul am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba walla bu France يانو غنو خادم رسول شيخ بامبا موم نو فيولانس بامبا لا واتي دي جوفن سيلانس سين بامبا موتاخ مريب امول تاندانس ناني سنت با مو رسول sag wàllu raw na ambulance. bamba. dégg raw na fréquence. sëñ bamba. ma doonoon sa résidence. surveiller ci xaadim rasool. tubaab yi ñoom dañ la daan menace. bamba. buur yi fit ne woon daan la offense. sëñ bamba. yore benn défense. budul yoneen khadim rasul gaa basam ben distance tubaab ya def nañ fa séquence ñom ñëpp di assistance ngir bëgg lor khadim rasul cey Sëriñ Tuubaa gaa basam ben distance tubaab ya def nañ fa séquence ñépp toog di assistance ngir bëgg la Xaadim Rasool lii rekk doy na prudence Bamba seen yéene mooy xañ la cadence Sëñ Bamba océan bële ku fa relance ca gabaw xam ne doo Xaadim Rasool yoneen bi mooy sa référence Bamba amoo defet yow bay laaj revanche Sëñ Bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf Xaadim Rasuul Seex Bamba yaay suñ confidence Bamba muridoo raw na te gis présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba màggal la wootee du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu auto suffisance bamba yow yaa jar woote conférence sëriñ bamba bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caasak enfance bamba nga leen yaay croyance sëñ Bamba. sa mbir dee xel mënu ko science. yaa yéeme yow Xaadimu Rasuul am di Moustapha Bamba sunu assurance